maaleykum mbooloo mi ci jiital euh, sëriñ bi papa maa ngi lay ziar euh, ñëwoon naa fi ba nga xamee ne maa ngi mbébét li tàggu la te boo ma joxul woon ndigal duma dem du ma continuer parce que fii laa bokk fii laa cosaanoo sama maam Mariam Aydara ma nekk xale bu ndaw duggaguma sax école di may indi fii ba yàlla moom ko ñu tëral ko ci sër sëg yi mu mu tëdd fii donc man ak kër gi démb la woon tey soog a ñëw ngeen nekk sama lépp yow nga nekk sama waajur di ma xelal lépp lu ma di dugg dugal nga ci sa moo tax maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram gudd fan ak wér yaram pour nga continuer di ñu tette di ñu won yoon bi di ñu xelal te bu ñu juuma it nga mun ñoo jubanti parce que sa njaboot lañu sa doom lañu maa ngi ñëw ànd ak ñii nga xam ne samay doomu ndey lañu samay wëllëre lañu ba ma commencé ba léegi ñu ngi may jàppale nekk nit ñu baax te li ma gën a ràññee ci moom ci ñoom tax ma ànd ak ñoom mooy dañoo bëgg seen réew boo wane ne dañoo bëgg seen réew wane ne ñoom seen réew moo leen ñor du affaire àdduna moo leen ñor ku nekk gis na réew mi nu may doxee ñu toog xalaat ci ne ñun de su doon suñu sago suñu réew doxe neneen sunu réew mel neneen mooy nit ñi nekk benn juboo te ñi nga xam ne amuñu ñu seet nuñ leen di dimbalee nuñ leen di jàppale ba seen situation gën yokk li nga xam ne nag mooy alalu réew mi aussi ñëpp bokk ko ñu aar ko sàmm ko ba nga xam ne sénégalais yëpp ñoom ci seen bopp danañ xam ne ñoom ñoo moom dañoo dénkaane mais jaayuñu dañoo dénkaane donc loolu moo doon samay tànk tey ma ñëw ni ma ko defee woon bële passé aussi ñëw ne la nga ñaanal ci lii nga xam ne ci la ñuy dugg danañ proposer nag sénégalais yi beneen réew bi ñu gis ñun réew boobu defe nañ ne nitu diine yi dañ ci am seen wàll seen taxawaay boo xam ne bu ñu tabax doomu Sénégal bi ñu bëgg tabax ko suba mu nekk doomu Sénégal boo xam ne dafay ancré wu ci ay valeur am mooy cosaanam te cosaanam diine mënu ci génn mu nekk diine yi chrétienne mu nekk diine yi musulman mu am nit koo xam ne nitu diine la ba pare nag aussi xam-xamam aussi mu def ko ak dooleem yëpp mu def ko ci defar réewam ñun boobu Sénégal lañu ñu a tabax nitu diine yi am ci seen cër xale yi nga xam ne aussi jàng nañu ñu am ci seen cër jigéen ñi rawatina jigéenu Sénégal am gën cee am seen cër man bi may loolu dama koy nettali toujours bi ma bi may door a affecté Sédhiou may dem Sédhiou 1981 man nag suma soxna bañ fay dugg ma gis ne jigéen ñi ñu ngi ci tool yi ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci vélo yi di dawal yenu ay kii loolu mu nekk loo xam ne image bu boo xam ne dafa des ci sama bopp ba léegi may sargal jigéenu Sénégal ndax seen taxawaay ci seen réew te mu wóor ma ne bu ñu leen dooleele suñu réew dana gën a mën a jëm ci kanam yooyu mooy ñun li ñu tax li ñu yëkkati papa li ñu yëkkati moo taxoon bi ma ñëwee ma waxtaan ceeg yow wax la li ma bëgg nga jox ma ci ndigal ne ma mun nga dem ma continuer ci loolu wax nga ma woon aussi ne balaa ngay dugg ci dara na nga dem ci kër diine bu nekk waxoon nga ma ko nga mën na nga dem ci kër diine bu nekk nga waxtaan ak ñoom moo tax moo doon sama tànku Touba Tivaouane war naa fa dem naa dem seeti ji clergé bi yeneen këru diine yi nekk ci réew mi aussi dinaa jéem def sama kant laay kàttan pour dem giseek ñoom waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne moo ñu yëkkati moo tax ma ñëw fii ànd ak délégation bi di sàkku ci yow ñaan pour nga ñaanal ñu parce que du lu yomb du lu yomb ñun nag ca la ñu yare woon rek ci la ñuy dox duñ ci génn mooy du ñu saaga kenn du ñu xas kenn du ñu wax kenn lu ñaaw wante nag aussi jàngal nañu aussi jàngal ngeen ñu leen nañu nekk nitu ñu am fayda am fulla loolu tam ci la ñuy wéy dinañ wax ndax ay citoyen lañu ne lii ñu gis ci suñu réew peut-être lii baax na lii baaxul lii neex nañu lii neexuñu ñun suñu beneen xalaat daal bi nga xam ne moom la ñu am ci suñu réew dinañ ko wax mais nag du ñu saaga kenn parce que yaru ñu ci loolu yaru leen ñu ci loolu du ñu wax kenn lu ñaaw waaw mm-hmm. waaw donc loolu moo taxoon ma ñëw fii papa pour nga ñaanal ñu lii ñuy dugg yàlla ñu dugg ci bismillah génn ci alhamdulilah te mu nekk lu gënal waa senegal yëpp jig waa senegal yëpp jik doomu senegal yi jig jigéenu Sénégal damay dellu si tuuti jigéen jig jigéenu senegal jigéenu Sénégal jërëjëf. Euh, ñaar fukki fan ak ñaar ci weer bi muy dimanche bi incha allah di ñëw bi ci topp ci la ñuy def déclaration fii lañ koy defee dakaar ñu koy defee Grand Théâtre ah ñu bëgg nag aussi nit booy dugg ci dara aussi bëgg nga say mbokk taxaw la ñu bëggoon aussi suñuy mbokk ñëw taxaw dooleel jàppale ñu moo taxoon ma ne bu mu ñëwee aussi loolu danaa la ko wax parce que keroog ba ñu waxee aussi waxoon nga ma ne boo ci demee ba nga koy bëgg a def na ma ko wax dimanche bi di ñëw bi si topp la ñuy def déclaration boobu incha allah rabi jërëjëf. jërëjëf Cheikh Al Becaye président am